yele yo je yere naa la waaye foo jëm ni marché de laa jëm yow man de maa ngi nii damay génn nii lu xew ni ba nga dem marché bi weeru koor gi yow ay yow yëgoo ko fan yii yëpp dafa feebar ba sonn yow xam nga man du génn tamit man nag sama sama sama lakkal be ca kër ga man du génn du ma dem fenn. waaye nag da ngay génn bébé. di seeti sa am di jàmm yi. dinaa fi ñëw nag. Ah. waaw looy togg sax. dama daa de laa ko bëgg a toggal xam nga bëgg lu forox. tey te en daa baax na ci nit ko feewal gën a mën a. Eh, man gis naa loolu nag waa xam nga lan laa bëgg. Ah. nga togg ko dama daa ba mu neex. da nga may ma ci ndax man wóoru ma. yow xamoo dama am gan bi ma bàyyi ci biir looloo taxoon ngay laaj. <laughs> dinaa la tibbal boor. <laughs> yow bàyyi Salaam alaikum. Papa an tànjawa. Dama génn. Yow kan. Man la mama. Mama ba. Mama ba. kii moo yónni woon tàndiira. tàndiira. waaw bu ñëwee ma jox ko ah, ah baax na. maa ngi dem. nu ma waa kër gi. ko dégg. moo ci weeru koor bi. nu mu si yaram nag. nopp sax ma foo ko fekk day nelaw mu jëlaa fu nda fekk yaa ngi nelaw rek ah man duma sonn waa nijaay nijaay xanaa li ndiira moomu ko tibba waa jottali ma bool bi ah, waa nijaay doo ma ko jottali dama sonn ci naaj bi laa ah. ah jigéen moo fekk may nelaw baal ma Daniel tu nak apa? Mudar panak. Nak aku jelas kamu. Wah, dia aku ni kudu que Ibarat. o madam aku kumfu fake itu kau kau Mana? maanaam kañ nga bëgg a jotee Domada. yàgg na. ah ak ma bëggee Domada ah. ah jaa ngay bëgg a leer de. leer na ba noppi tey Domada bi daal ah ñu ko fi jugal ak mu fekk si kër gi kooku lekk. kan la fi fekk si. kii boobu kër gi. xanaa yow. Ah, ku nu jaay yaa ko waaw. yoo xam nga ma bëggee Domada. nu jaay dog nga sa koor gi ndax Domada gi. doo ko gisee yaa dog yaa gën naa waaru ñu daal daal nii nga nekkee. Oh, bay nga wax. ñu daal ñu daal nii rek lañ lay bàyyi. na ma ci bëggati.